Why? ak point d'interrogation et le point d'interrogation est à tout son sens mm-hmm. dans cette euh, émission bi euh, d'abord ñu suivi de cas euh, sargal ak di mi ñu fi def lu baax nga ma vidéo ki bi ma vidéo vidéo ñoom euh, kii euh, Aziz Dabala bi xam nga affaire Aziz Dabala bobu euh ñom ci Yalla ñukay ñu euh, wat famiyam di ñaan Yalla suñu borom bi yeesalaat yéen ma dem ci mom xippé firdausa dama dama je pense qu'il faut ñu féliciter bu baaxa baax gis nga li ni moy bañ kay bañ kay defeere sen déferment bip mo ñew encadrer len mais surtout bu reuy bu sunu force de l'ordre di defati Mhm. na defe depuis deux mille vingt et un sénégalais yëpp reconnaître nañu ne ñun on n'a pas à rougir euh, de notre sécurité nationale ndax wax dëgg yàlla saa bu leen soxlaa ñu taxaw def liggéey bu mucc ayib <coughs> wane nañ ko tamit ci euh, lu metti li nga xam Sénégal gi yëpp yëpp depuis euh, la semaine dernière ci la ñuy nekk di dund muy ni ñu faatee ci anam bu ñaaw ay acte de barbarie clairement ñu exercer ko ci ñaari ndaw di Aziz Dabala ak xale bi mu bi mu hébergé woon këram di euh, Boubacar Gano ñu gën ko xam ci Waali euh, en un temps record police ak gendarmerie ñu ñu def jonction des forces mm-hmm. ba trouver euh, jàpp ñëpp ñi nga xam seen loxo laala na si ba léegi nii fi ñuy waxee dañuy 7 septième bi nga xamné muy Fallou Diop bi nga xamné mo moo en cavale té papam ci bopam mo japp ci loxoom. Mhm. dem djébal ko yoon. ah ça c'est bien xam nga lolu c'est excellent. Mhm. ñu ñu gëreum bu baax nak gëreum bu baaxa baaxa baax synergie d'action bi nga xamné euh, force de l'ordre def nañ ko ba mëna mëna ñu mën ci dénouement bi euh, c'est important ñun citoyens yi ñu xamné nous sommes en sécurité dans notre propre pays c'est important aussi que defkatu ñaawteef fi ak ñi nga xamné ne qui sont tentés de suivre le même chemin ñu xamné bo faté ni nit comme tollaguñu ci indiwaat peine de mort waaye bo faté nit le minimum moy nga am perpétuité ndax euh, do fat nit ci anam bi nga faté euh abrégé existence am abrégé wal existence de toute une famille ndax fi néna xalé yu ndaw yi di liggéey ci fii euh, duudu chaque jour dañ lay yokk jom ndax da ngay naan euh, salaire bi nga leen di jox mhm. du yam ci ñoom salaire même nga fay nit 5000 francs 5000 francs boobu moom bu ci amee ba am ci 200 francs lay doon mhm. lu ci des yépp kërëm la jëm mhm. kon tey ndaw boo abrégé vie wam rek abrégé waale nga la vie de plusieurs autres personnes tout à fait kon àq boobu nga téye ko te yàlla suñu borom kese moo moom mbakkan moom mu ñu ko jox moo ko mën a jël waaye nga abrégé viw nit noonu dem def un un an deux ans génn di doxantuwaal def loola neex mel ne comme nit ni nit ki nga rey euh, benn yoo la wala benn melentaan wala benn mbóot la nga rey ko génnaat loolu dafa war a jeex Sénégal te ñi ngi ñaan ni nag dëgg-dëgg justice mi nga xam ne démb procureur euh, euh, Ibrahima Ndoye mm-hmm. ci la jël service mm-hmm. procureur boobu nag Bachir ñu yow xam nga ko man xam naa ko Doudou xam na ko sénégalais mhm. yépp ku ko xamul dégg nga ko mhm. ñépp nag am yaakaar ci moom tout à ndax li mu wane fii contrairement a ce que nit ñi di ko bëgg a wane ne euh, et tout ça mauvaise communication Ousmane Sonko la di wane ne magistra yu bees yi ce sont des magistrats du projet am na si ñoo xam ne am nañu woy bu rafet ci Sénégal te seen woy rafet boobu moo jiitu yëfu politique ndax ñom fo place bo mu tok politicien tegu len fa sen jang mu reuy sen discipline sen yar ak sen choix de carrière ndax ba tan ba tan jotee ñom ñoo tan don don d'abord euh, juge ba déné ba jang ba jang ba to ñu tan ñu ñu tassara len yow ti procureur ngay don yow li ngay don le ngay don kon lolu nak ku ko jël dëxañ ko ci ci bëgg-bëgg desiderata beni. nit dong moo xam muy politicien ak lu munti doon kooku yow bul fàtte mukk ne dafa am ñoo remplacé te bu subaa dinañoo remplacé te way wu rafet moo jara am ci mim réew kon juge bees yii ñu nommé majeure partie bi doon ay xale ñun ñëpp dañoo am yaakaar ci ñoom mooy ñu doxal rek yoon bañ ci dugal benn par parloo bañ ci dugal lenn loo xam ne affaire politique la wala nafsu bakkanu nit la ñu xam fiñu fini doon fiñu fiñu teggu tegu encore une fois nit tegu len fa Sen méritu bop sen jambaru bop la ginnaw yalla ak yonenté bi mo len fa tek ibrahim ndoy nak procureur bu bes bi ñun ñep am nañ si mom yaakar ndax parcours bi yep jaar na ay am dossier yu yu gëna max fi ci réew mi mom wayu ay kañ yoy la am ci xale ma yu mag dossier yu mag dossier ñoom ak Alex. xam nga da fay am ben histoire bo xamne day bax nit ñi xam ko. c'est important ñi ñëpp dañu doon toog di seetaan. nga ñëw toog seetaan Demba Kañ toog Demba Kañ man ba sama xarit la. non mais dañuy déggante. nga xol nga imagine wallaahi ino amna ben documentaire bo xamne ne mu ne mm. on avait l'impression que Demba Kañ c'est un dieu. c'est un dieu wallahi bu bu jógee ñëpp tàccu. waaw tu vois ñëpp tàccu. moo après xam nga bo yémé ci ay xalé yo xam mm. duñu amuñu culture politique nu ko mag ñi di waxé jànguñu jonguñu. wallahi